projet bi dépassé na fu ñu koy arrêté il faut pas arrêter la mer avec ses bras mbir mu jàpp du ko régler. lan moo koy régler. xam lu koy tege. lan toog ci taabal waxtaan. waaw yéen boobu ba tey yéen a ngi sàkk loolu. dafa mel ni yéen waa Modap laay wax quoi. waxuma waa Pastef d'une manière générale mais waa mm-hmm. yéen fu ñu leen dégg da ngeen di wax. nañ waxtaan nañ waxtaan. Mm-hmm. waxtaan boobu est-ce que base bi soxla nañ ko. Mm-hmm. wala tamit lan moo ko sabab. waaw xam nga ñun boo xamee ku man boo xamee man wan man sama bopp laa. waaye nit waxtaan nga man yaa ngi dégg man ñemewuma woote lu dul waxtaan. boo xamee fi ma jóge ak li may inspiré ak xadara bi ma naanee. nit mënoon naanee ci xadara Seydi Hadji Malick di woote leneen lu dul waxtaan. nit mënoon naanee ci xadara Cheikh Ahmadou Bamba di woote leneen lu dul waxtaan ñooñu ñoo composé Modap. ay doomi daara ñu jóge ci kër yi gën a mag ci senegal ñi seen maam yi ngànkoon réew mi. boo nee Tayiru Fall bu Pire maamam moo doon Xaali Amar Fall moo samp daara ci mille 1603 ci Pire. Hmm. la révolution Torodo bi ngay dégg ñi ko def ñu ngi jàngee piir gi hmm. kooku moo jiite moo dam hmm. yaa ngi dégg ay sëtu Serigne Touba nekk ci. man mii li may tuuti tuuti avec modestie Cheikh Alaaji Dramé sama maam menn moom rek la Seydaaji Malick Moussa dem fekki Serigne tubaa di ko fekki Cheikh na Cheikh Saad bu fekki ko juróom-ñaari wàll yu xëy daje ci ci keppaaram kon man. woote woote waxtaan dafa naturel ci man yaa ngi dégg ñun bu ñu toppoon duñ agsi fi bu ñu topp man makki sàll président de la République maa ngi koy wax fi devant les caméras ku koy xam maa la ko gën a xam bu ma déglu woon benn bakkan du dee ci réew mi. waxtaan ñaare ko seq tamit. moo tax ma ni la ñun ñi ñu ko seqal gëm nañ ñu bëgguñu waxtaan. ñun yéen bëgg ngeen waxtaan. ñun bëgg nañ ko. parce que man mi di waaye yow je parle avec tout le monde képp ku bokk mag ku jege Macky sàll muy guddi muy bëccëg seeti pour waxtaan pour ñu toog wax ci table. parce que ñun xam nañ li nekk suñu ginnaaw xam nañ ni bu ñu waxtaanul dinañ àgg foo xam ni waxtaan day wees. te yàlla te ñun xam nañ ni amuñu moyen xam nga état pour nga ndërmel dara day fekk nga am moyen yi ñun gëm nañ ni xam nañ nag bu baax république bi doole ji mu am parce que man mi koy xam naa lan mooy république mais boo indee kaamil ma waat nii amuñu moyen yu ñu déstabiliser Pastef amuñu ko mais essayé nañ ko. mois de mars essayé nañ jàpp Ousmane Sonko jàllul yaa ngi dégg ñu dem bu jëndi ay armes li fi amoon du fi amaat mois de juin ñu essayé ko jàllul loolu yëpp boo ko essayé da ngay dellu ginnaaw gëm ni lii nag réalité la nga bañ a dem ci summun buk mun am yoon loolu alxuraan jàngal nañu ko bul tëx lu gumba da ngay taxaw nga ni ah comme essayé naa jàllul léegi naa naa naa naa naa jiital waxtaan mais mais ci dialogue bi woon nañ leen waxtaan ba bokk ñun dialogue bi loolu du dialogue waxtaanu yéen ñaar rek ngeen xam loolu ñun waxuñu waxtaan ñun ñaar parce que loolu ku koy wax respecté woo Sénégalais yi mais tey xam nga ni yow réew mi ñaar kenn fi nekk koo xam ne ni moo yor doole ji moom la Sénégalais yi gëm mu jaral leen dee ah, loolu mooy dëgg ah ñi ci des nag amuñ doole yow kan nga fi gis ko am fii fukki nit ah barke Cheikhou Tidiane laa lay wax xoolal man dama lay wax li leer ak li ma gëm ñeneen ñi am nañ doole de amul fukki amuñu fukki nit xanaa yéen a leen ëpp doole waaw déglul man li ma wax man la engagé Khalifa Sall amul juróomi nit Khalifa Sall billaahi Sall bu demee élection mënta am parrainage buñ ko tegee ci yoon ah déet Khalifa Sall mu nekkoon fi maire Dakar waaye maire maire Dakar yi yëpp Macky Sall lu mu fi nekkoon loolu du du argument Karim wax guma ci Karim Wade Khalifa Sall laa buñ ko tegee ci normal mu dem élection man lii ma wax man man man loolu laa gëm. am parrainage. mënta am parrainage ci réew mi. ah imaam li nga wax rëy na ni. waaw ah, mais dëgg la xam nga wax ñu rëy ak dëgg moo am solo. Hmm. barke Cheikhou Tidiane bu fekkee dañ koo teg ci yoon ah ñu joxal parenage bi mu jaar yoon Khalifa Sall mënta am parrainage Sénégal. Hmm. yow yow yow ban jeune nga gis yow jeune bu moom boppam te libre. Hmm. tey inspiré changement ni la Khalifa Sall la àndal. mooy ñi nga xam dañ fa am intérêt. am na jeunesse xale xale. xam nga ñun xam nga ñun tey man man ñun àndewuñu ak Sonko intérêt ah. ñun Sonko biñ koy xam dañoo tekki ba noppi. idéologie ngeen ko déglu rek am li ñu war a am lépp soog a ànd ak moom ñun idéologie la ñu gëm moo ñu ci bàyyi. yaa ngi dégg politique da dox yamul ci Khalifa Sall rek. ak PDS ñun ñoo leen jox parrainage ci élection yi passé. ah législative yi. waaw yéen da ngeen a dem ñoom ñu dem ak wàllu ngeen daje de. waaw mais ñun ñoo leen mottalil parrainage. ñu ngeen leen mottalil man imaam man dama fen. nañ ko weddi nañ génn ñu weddi loolu. man rus naa fen. ñoom koy yàgg nañ ko weddi. waaw mais du dëgg. barki Demba Ndiaye teg fi nga toog. wala ku ko weddi ku ko weddi mooy. fenkat bi Abou Mbacke Thiam toog fii wax ne non dégg man du ma tudd tur. non non man maa ne la man maa ne la la ko wax. waaw dimbaliwul PDS pour mu am parrainage képp ko yaay fenkat bi dàq fen ci Sénégal man Imam Dramé moo la ko wax. non déet waay mooy la fen mooy ko waxul dëgg. waaw arab di ko wax kasib. kon loolu dara lu garaaw amagu fi. je pèse bien bien moom xam naa loolu mooy dëgg man du ma waxantu. PDS amuñu woon parrainage ñun ñoo leen jox parrainage kon tey bu ñu ñëwee réew mi tollu fii yaa ngi dégg Ousmane Sonko mois de mars bi ñu ko jàppee bi mu génnee. dafa def déclaration boo xam dañ cee war a dellu te maa ngi wax sénégale yi ñu dellu ci. ban déclaration dafa wax ni man président Ousmane Sonko maa ngi remercier le peuple sénégalais di leen wax ni dootuñu nangu président Macky Sall di tere kenn mu nekk candidat ci réew mi dinaa xeex wala dinañ ànd xeex ba Karim Wade nekk nekk nekk candidat dinañ ànd xeex. ba xalifa Sall nekk candidat képp ku bëgg a nekk candidat nga nekk candidat loolu la waxoon te loolu la gëm idée boobu sax moo indi yeewi ba ñu def intercoalition bi ci loolu la jóge man lu ma la wax témoin oculaire laa dama ko fekke hmm. parce que man awma complexe ci ñuy dund fii kenn ku ma jàkkaarloo mën naa la wax li ma xalaat te rus naa fen imaam kon yeewi ñaata député la am wala ñaata député la am imaam non xoolal imaam loolu. non non déglu rek xam nga man nekkuma ci weerante. logique laa la dama la bëgg a wax nii li tax ma indi lii laa la bëgg a wax. waaw est-ce que parce que fi nekkul di naagu non ñun naagu ñun naagu wuñu ñun dañoo natt suñu bopp xam suñu doole. xam nga kii naagu. doole boobu am ngeen. xoolal kii naagu kii naagu. damay ragal nag yàlla bu ngeen naagu nag. naagu comme lan. ah yëg seen bopp. yow man man réew mi ku ma ko gën a xam man kenn ëpp ma information je parle avec tout le monde damay dem fépp réew mi Pastef moo ko téye ci loxoom nii Ousmane rawatina Ousmane Sonko du sax Pastef ah moo wax la en réalité ñu bari ñu topp ci ñu nekk ci projet bi gëmuñu parti kay commencé par man ma Ousmane Sonko non déglul rek moo wax la man gëmu ma parti nekk Pastef moom buñ génn man bu doon parti rek du ma dugg ci biir waaw man bu doon parti nii rek ah. comme parti tradition yi fi nekk mhm. ba ci Pastef moo wax la dëgg man gëmuma Pastef hmm, loo gëm man Sonko laa gëm mais Sonko dama gëm ni mu jaddit as siyaasi la xam nga Serigne Touba dafa wax ni man damaa ñëw pour beesal diine ci hmm. nekk mu jaddit ci lislaam noonu la Sonko nekkee al mujaddid as siyaasi mujaddid mooy kan mooy ki ñëw fekk benn système boo xam ni corruption rek la fekk fa système boo xam ni ay valeur amatu fa ngor amatu fa mu ñëw bëgg ko beesalaat mhm. Ousmane Sonko ci niveau boobu la nekk moo tax ku ko jàppee politicien xamoo li xew ñun affaire parti boole wu ñoo moom dañoo déglu discours am yaa ngi dégg man aw ma complexe moom xam na loolu dañ ko déglu xam ni kii li muy wax njariñu réew mi la ñu jàng parcours am yépp xam ni ku jub la ñu fréquenté ko xam ni jullit la ñu soog a ànd ak moom yaa ngi dégg kon Sonko moo téye réew mi PDS laa la wax waaw ah, ñëwal ci moom amuñu buñ doxalee normal nii boo gisee ñoom ñëpp ñu daw ci dialogue bi am problème mu parrainage lañ am na ah, moo ko la ko dialogue bi yëpp pour Macky Sall wàññi parrainage bi pour ñu am parrainage looloo tax ñu dem fa mook ñoo Khalifa Sall parce que bu ñu ko tegee ci yoon kenn mënu ci am parrainage ah déedéet nag imaam man boobu moom laa comprendre. man li ma wax nii man la engagé. keneen yow la engagé. waaw dama ko comprendre ndax moom yi ma lay jox élection yëpp bokk nañu te am moo toog président seen leader. joxe joxe consi ne bu kenn bokk jàppale wu ñu kenn. waaw ay parti bu wóolu sa bopp nekk ci sur le terrain di nga wax bu kenn bokk. déet moom dafa jàppoon ne ci li mu joxe comme argument. mooy ay njuuj njaaj Macky Sall daf koy def. lii nii ñuy def duy njuuj njaaj. lan dem di kompaloo as gor. gën a garaaw njuuj njaaj bi. pour yéen dialogue bi yéen a taxoon ñu dañ leen doon. dialogue bi ñun lii ñuy def nii du jàll. te lii fii laa la ko waxee. Mhm. man alxuraan laa gëm. loolu man su ma gaggee damay dellu ci alxuraan. Mhm. alxuraan dafa wax ñaari laaya mooy ban dafa wax ni inna allaha laa yudiu ajra man ahsana amala yàlla du sànk yoolu képp ku rafetal jëm ci man képp ku rafetal ci sa àdduna ak lu mën a doon bis dina ñëw nga téye ko waaye inna allaha laa yahdi kaydal qaa'iniin képp kuy war yàlla du ànd ak yow te xalifa Sall dafa war loolu mooy dëgg na assumer loolu devant l'histoire hmm. ah oui dafa nar a trahir Sonko parce que Ousmane Sonko jiwu ko lii mu ko bëgg def dem isoler Ousmane Sonko pour ñu rendi ko parce que loi yi ñuy wax nii code électoral bu jàllee mooy Ousmane Sonko du nekk candidat kan moo kan moo kan moo kan moo ànd ak ci loolu PDS la ak Khalifa Sall li mooy dëgg nañ wax loolu devant l'histoire pour suñuy sët xam ko ni réew mi ba mu agsee fii am na benn leader bu ñuy wax Ousmane Sonko bi mu ñëwee jaay projet ba réew mi gëm ko am na ku ñuy wax Khalifa Sall na leer ak PDS ñoom ñoo ànd ak Macky Sall pour xañ ko mu bokk loolu mooy li histoire di bindaat yaa ngi dégg man calcul yi nit ñi nekk nekkuñu ci man Ousmane Sonko moomu ma du ma wax imam lii ngay wax su ma ko waxee ma bàyyi ko man lépp lu may wax man la engagé ay parti yi ngay wax tënku ma man ba ngay wax xaw ma Pastef je pèse bien mes mots li nar a am nii jeudi mooy fexe ba jël code électoral bi dugal ci ay articles yoo xam ni quelque que soit Alpha Ousmane Sonko du nekk candidat loolu képp ku ci nopp complice nga devant l'histoire kon hold up la ñuy waajal jeudi. non loolu moo gën a garaaw hold up loolu trahison la te mbir mii dafa dépassé ñu war a toog ci néeg di xumtoo réew day toll foo xam dañ koy waxtaanee ci penc Abdas Diop dégg naa ko muy wax donte li muy wax yëpp man dara engagé wu ma ci te gëm naa ni. intellectuel yi gën a malhonnête ci Sénégal moom ci la bokk. Abdou waaw parce que nit bu ngeen àndee man xaw ma man ànduma ak Macky Sall. damaa toog assumé mais damaa toog assumé ko ni ànduma ak moom di xeex système am. Mhm. yaa ngi dégg mu metti ma toog muñ. Mhm. yaa ngi dégg mënoon a bokk nag ci ñi am ci man dara parce que dama ko xam-xam fa même ànd ak moom xeexle ko. Mhm. mais man damaa toog daal di serré sama ceinture mu metti dawaluma ci oto yi nekkuma ci jeeg ji. Hmm. waaw loolooy dëgg parce que opposition yombul ah man Pastef musuma jox cent franc ma wax la ko émission xamuñu sama kër lépp lu ma def sama volonté bopp laa ko defee kon combat bi yombul te ñeenti at ñu ngi ci yow nga ànd ak nit douze ans mu yor la yoral la salaire yor sa lépp nga taxaw ni day wuruj yow kon yow yaay intellectuel bi gën a malhonnête ci Sénégal vidéo bi wax la non loolu la wax man dégg naa ko hmm. da nga ni yow si alxaaji ab Aziz lañ la tuddee yow xanaa wuruj yi fi nekkoon yëpp boobu léegi mënoo ko wax wuruj yi fi amoon yëpp depuis 2012 ba tey xam nga ni day wuruj nga ànd ak moom ci wuruj yi tey mënu laa def candidat nga bëgg génn génn takki rajo mais il faut ñu respecter Sénégalais yi gis nga les intellectuels yi nekk ci réew mi il faut ñu respecter ñu. Hmm. no loolu du manque de respect la man xam nga man bokkuma ci ñi nga xam ni ànd ak nit day tax ma bañ ko man du bañ kenn malgré mes positions. nga xam ni jàpp naa ni li ma xalaat yëpp maa ngi koy wax di ko wax ak respect ak xam-xam teewul bu ma président woowee ma wuyu ji wax ko sama xalaat te moom xam na ni man sama xalaat laa koy wax ak li ma gëm ak li dëgg ci man mais li ma d'accordul mooy chantage li ma d'accordul mooy nit dafay nekk jafe-jafe nga bëgg ci profité def ma candidat wala Abdou Aziz Abdou Aziz Diop du référence bu ñu naxante même bu jàngee diplôme yi mu jàng yëpp du référence man je ko ne très bien ñoo bokk dëkk ñoo bokk xadara bi pourquoi nga ne du référence xam nga lu tax doo référence hmm. mënoo mënoo mënoo yow wuruj yi ngay wax ni xamoon nga ko lu tax waxoo ko woon man de ba ma gisee ni mag Sall fa mu jëm baaxul damaa teel a génn dénoncé ko 23 juin muy wax ñun ñoo fa nekk noonu man kenn jiituwuma fa amul benn marche bu le 23 juin def te fekkewuma ko man mii di wax ak yow waaye ba ma xamee Macky Sall fa mu jëm baaxul damaa taxaw teel jël position ni fa mu jëm baaxul nga toog ba nga xam ni mu ngi ci ay jafe-jafe nga génn di takki rajo bëgg sonal sénégalais yi sénégalais yi duñ daanu ci piège yooyu loolu bref dama koy wax. pour pour intellectuels yi ñu respecter sénégalais yi. yaa ngi dégg li muy wax yëpp bopp ma ko ñor waxul pour réew mi parce que booy wax pour réew mi da ngay fàtte sa bopp mais nañ ko def candidat mais li ko man Farba Ngom xam nga man Farba Ngom jàpp naa ni réew mu normal Farba Ngom waru faa yëkkati kàddu. ci li ma jàpp. waaw hmm. ah oui. Ah, xanaa du citoyen même bu dee citoyen jàngul. ah ku jàngul doo wax. ku jàngul waroo wax. ah mais l'islam ku jàngul a wax ci même ci république ku jàngul waroo wax. man façon jàng. jàng yëpp nit bara ngaa wax da ngay jàng pour xam li ñuy wax. mën ngaa bañ jàng France jàng. damay ah, daaneel sama logique dama la bëgg a wax ni réew mu normal Farba Ngom waru faa yëkkati kàddu. loolu ma jaaxal contre naa ko trop. mais Farba Ngom loo mën a wax ku fidèle la au moins que mu ngi ànd ak Macky Sall buy dee sax ñu ànd dee. Mm-hmm. ça bi dire loolu mooy ngor foofu laay waxee. d' accord yaa ngi dégg. d' accord nit dangay ngay mënuñoo ànd ak Macky sàll ba Macky sàll def lim def lépp ci réew mi ñu war a taxaw nag jël seen ay responsabilités ñu noog ni ñu noog moom ñoo ko àndoon loolu mooy ngor. Mhm. mais bëgg a taxaw tey ah taxaw soog a soog a sulli lu bon li loolu la wax ni ñun yooyu discours yooyu ñu ci jàll. Mhm. ñun discours yooyu kenn duñ ko dugal. li may wax ni nag ça n'a rien à voir ak politique dafa laaj ñu dégloo mu tuuti ak xel. je ne suis pas là pour défendre Macky Sall xam nga loolu dégg li ma wax fii. Mhm. man su ma sañoon Macky Sall tey mu génn palais bi Sonko dugg fa. mais man moral dama ko gëm. Eh, mooy mooy lépp ak éthique les intellectuels nag malheureusement amuñu éthique amuñu moral parce que njàngum tubaab la sëñ Abdoulaye waxoon rek tubaab moom moytuwul boo amul ku la dimbali ab yéefar ngay doon. Hmm. malheureusement waaw tubaab bu pare ci yow dëgg. billaahi boo amul sëriñ bu mat sëriñ da ngay saaraat. parce que àdduna kese lay def sa bopp bi ak i calcul Sénégal li ñu dal yëpp ay intellectuels yu malhonnête ñoo ñu ko teg loolu bugguma tax bugguma ñu taxaw ci. non non mais man bi ma dégloo audio bi bi ma dégg dégloo audio bi dama am kersa parce que man Abdou dama ko xam yaa ngi dégg yaa ngi dégg. ñi muy wax naan tontu na leen mais ñoo ñooñu mu wax tontu na leen ñoo ñooñu ñooñu liñ lii muy dénonce tey lañ doon dénoncé yaa ngi dégg xam-xam kenn doyewu ko pour di tontu nit. léegi. yaa ngi dégg mhm. gis nga même même kaaw Abdou Aziz mooy Yoro Dia Yoro Dia dégg naa ko un universitaire comme Yoro Dia nga ni da ngaa jàng diine yaa ngi dégg ma xam ko baax xam famille bi mu jógee nga taxaw